Bataille tey ci scandale du jour Doudou Wade ginnaaw bi ko Maïmouna Ndour dalalee kàddu mu yëkkati ñu déglu ci ko ñëwaat. mais ça ça peut se comprendre aussi hein. ça peut se comprendre comment. oui mais parce que. da nga koy wutal circonstances atténuantes. non du tout moi je ne cherche jamais des circonstances j'assume les circonstances dans lesquelles j'ai agi man lu ma def dama naan maa ko def. lii moo tax def ça peut se comprendre. oui mais parce que. parce que dafa defone affaire bi kay la dañu defoon ne président da ngay ñëw rek ay ça marche comme sur du roulette nga ñëw taxaw né nangam ak nangam déedéet xam na ne du non seug bi yombul forme yombul parce que li ngay for sax nga gisul motax situation bi ñu nek nii man lima ma waron conseiller ñom fi mu toll ni moy ñu dal tok xol ubi sen beut di xor rek talal sen nopp di deglu rek. Si gisul dégguñu ñuy xeeñtu ba xam li ñu war def yépp mais fi mu jëm bu continuer dans six mois ce sera la catastrophe. Hmm? c'est-à-dire. parce que des conflits lay indi xam loolu conflit xam nga conflit li ci gën on n'attend pas les conflits moo tax parfois bokkuñu perception ci li ngeen koy wax ak li ngeen ko tuddee parce que xamu leen bokk xamu leen li xew ci ñun mais loolu problème bi mooy moi je suggère au président de la République de prendre une orientation calme de la situation de regarder de très près ce qu'il faut faire moom na ay orientation claire parce que projet bi clairul yow sax xam nga ne projet bi clair parce que on s'est rendu compte que amul parce que nee nañ projet bi pareewul maintenant mais moom am na loo xam ne lii war na ko mën a bëgg pour réewam parce que ni nga bëggee réew mi ni ma bëggee réew mi moom noonu la ko bëggee. non euh, ñoom nee nañu projet bi euh, euh, clair na nee nañ la la la partie adaptée du projet aux réalités macroéconomiques nee nañu lool la ñu nekk. Ah, ah, di defar ah ñoom il ne savait pas la la situation macroéconomique du pays loolu wax la Ousmane Sonko président du PASTEF député à l'Assemblée nationale waxa a waxa député APR yi génn bàyyi ak assemblée bi kenn rek ndax lu xam léegi mu ne di xew la situation macroéconomique xam nga ko yow ci dëkk bi ki nga li mu di la wax si 70 pour cent xam nga ko parce que yaa ngi koy dund loolu du wax bi dañu defoon ne dafa yomb yombul mais boo amul galang boo xamul galang bi koy tëgg nga sel nga jël semiñ boo ko tëggee jeex na day bët nañu def ndànk dama leen di dama leen dama leen di ñaanal ñu réussir mais pour ñu réussir. mais mais wallaahi loolu lañu yaakaaroon loolu lañu yaakaaroon ni ko Sénégal Macky Sall day xëy rek sol ay vestam di jaabante fii ak Europe di di di di parfum wu lu neex di lekk lekk yu ne état c'est au-delà de tout ça état c'est au-delà de ce que parce que population bi gis c'est à toi yow mi ñu yow ya cette possibilité pour satisfaire population bi la fal mais pas pas chaque jour nga genn wax pas nga menacer état du yow ne les réalités de l'état nga ngang man lima gëna miti, mom day wax dara ba ñepp xam li mom moko wax du luñu trafiquer du luñu forcer pour mu wax ko mi sénégalais dañ ci dégg sen tank man li gis billahi wallahi wa taala jusqu'à preuve du contraire gëm na ni ñi and ak mom anduñu ak mom ci sago il y a quelque chose de louche parce que ak sénégalais nu mu mel ak sénégalais nu mu bañé ku tass yaakaram ak sénégalais nu ñu mënee beddi doomu adama yow chaque jour nga wax luñ lay xeebee chaque jour bu ñu gëstoo say waxi démb gis ni ça n'a rien à voir ak sa doxalin tey toujours ñu ngi continuer di saaga nit di défendre jëmm jooju man je me dis que c'est pas naturel gis nga mbëggeel bu naturel sax dañuy waxante dëgg bu ñuy xeex ñu xeex bu ñuy xuloo ñu xuloo bu jàllee ñu jubowaat mbëggeel bu naturel hypocrisie amu ci mbëggeel bu naturel chaque jour xuloo la parce que vous vous dites la vérité yaa a beaucoup de couple chaque jour c'est parce que du ñu nëbbante nëbbante bi mooy lan hypocrisie yi doxul seen diggante maanaam gis naa kii lu mu def jaarul ci yoon mais kon ko dama koo bëgg bàyyi ah baax na daal bëggeel boobu du am fin maanaam mujj bi du rafet maa ngi dégg ñu naa le réveil sera brutal ay ca ay ca rek réew du caaxaan c'est pas du blabla dix-huit millions d'habitants du ay caaxaan avec tous ces problèmes et puis pays bu pauvre gouverne ko dafa metti parce que tout le monde ñepp ci ñu ngi xaar état presse bi ñu ngi xaar état jappalé len. les commerçants ñu ngi xaar état jappalé len. ñiy liggéey port ñu ngi xaar état jappalé et c'est normal parce que yéen ko diggee mais diggee nada. dara. Yo digo yo y vivo Dünya mutluluk Almanın